ban euh, selaan bii nii nii fii nii. waaw maa maa ngi lay neefee. yaa yoon bi nii rek. waaw léegi ah. hectare bi yëpp. Ah, hectare bi yëpp dañ ko mën a doxo. 14000 créé ñun sax dañu fay yàggu ndax fii day jub. e pour man da ngeen may topp damaa bëgg lu leer rek de. dil ma kaar kat waaye. gis nga courant bu bëggee courant day difficile day bëgg a dee day facile maa ko day difficile. day facile bay bëgg a dee xool nañ ko. mën na pompe mën na lii. lu xew TV. seen YouTube sénégalaise. da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér wóor. salaamaaleykum di leen di leen ziar yéen ñi nga xamante ne nii yéen fi nekkal série yi nga xam ne may daw fii ci Sénégal yaa ngi nuyu di leen ziar di leen delloo ziar bu baax a baax a baax. man nag man la fàjjoog dëkk awan doon wax ci li nga xamante ni mooy série Mœurs waaw ah, mooy série bi mujjee am épisode 34 bi daw na yaram daw yaram boo xamante ne ni kum doon yow tamit ngay jigéen soxol dina tooy soxol dina fees ndax yaa ngi nekk ci biti wala nga toog sa nekk wala nga toog sa perem wala nga toog sa saal di seetaan ku seetaan épisode bi passé sa rongoñ tuuru na sa rongoñ sotti na waaw nga nekk ci sa saal ak foo mënti nekk daal sa tooy na sa rongoñ tuuru na ndax li nga xam ni moo daanu ci kaw Aida ci théâtre bi waaw tamit warul woon a yàq ëmb ndax ëmb moom yàq ko risque la mais kum doon yow tamit di yow mënoo jur doom joo xam ne yéen bokk benn baay metti na dis na trop tamit li papa ji def dafa war a jeex Sénégal bari na fi de dañ koo xamul rek mais ñu bari ñu ngi koy dund ñu bare bari bari ñu koy dund mais man gisuma woon pour Aïda war a mën a dee ci théâtre bi déedéet dama waroon a mën a gis ni Aïda dafa waroon dund ba nga xam ne papa ji dina feeñ mu protéger rakkam ba nga xam ne yoon teg na papaam loxo waaw luy xew daal war a mën a xew mais ni mu deewee nii tey jii tey kan mooy protéger rakkam ah mami bu melee ni Aida tamit noppi kan moo koy protéger kan. asalaamaaleykum yéen waa Lu Xew TV ñu ngi leen di ziar di leen bëgg di leen di wax seen wàccuwaay di leen wax ne li ngeen def ne lu rafet la waaw kay lu rafet la après may ñëw si cas Aida bi mooy Aida mooy mœurs bi film boobu noonu c'est que Aida da koy gis noonu. nit ñi léegi duñ dañuy gis nit ku mel ne rek duñ xool la nekk si ginnaaw avant dañ naan moo bon bonu boppam te ah, dañoo war a xool yi nekk si ginnaaw avant loolu mais duñ tëb tëb rek dañuy tëb tëb rek mooy loolu noonu kii dafa bon c'est que dañoo war a xool yi nekk si ginnaaw kooku lu tax mu bon parce que xëy xëy yi meloo woon noonu xëy xëy mel ko ah dañoo war a xool yi nekk si ginnaaw mais nit ñi maanoo tuñ mais finalement mujj nañoo xam ba xam dëgg bi dañ lay gis rek commencé wax duñ xool yi nekk si ginnaaw moo bari si jamono ji parents yi tamit léegi xew yi maire yi loo gis maire yi ay langue ba ay quatre heures kenn lépp lijjanti ul sa doom yi jamono ji daal moo toj dëkk bi moo toll foofu noonu Aïda tamit loolu def na ko ni mu ko waree da ngay xool di Aïda da ngay xam ne mi ngi ci biir loolu dëgg parce ki yàlla ñu bari na dañ ko si critiqué mais moom liggéeyam lay def kuñ comprendre avant que ni bu ñëwee foofu liggéeyam lay def mais pas pour melul noonu mu ngi def loolu baax seen liggéey li ngeen def rafet na trop. waaw en fait man benn question wala si am boo xam bu ma pour woon posé muy ndaw si comme ni ko papa ji moom noonu si biir kër gi dundee moom si kër gi mu noppal ak moom di ko dundee ak moom di ko noppal xaw na jël ba ñu bari contre noonu quoi oto donc métti na trop nag waaye nag pour man euh, waroon a am telle solution pour man même bu ko papa ji menacé nekk même boo demee dinaa ko def saarak man pour man war na man a sacrifier def lu tuur Euh, dam ma fexe la jëndi ma teg yëpp lu si yoonu police ba police jéem a la jëndi loolu noonu au moins tey au moins tey man li ma xalaat comme comme li ma xalaat ndax paa bi bu fekkante ne bàyyi nañ ko tey muy dund nii mën nañ tey dem ba def ko keneen euh, keneen ku bokk sax si biir kër gi ndax tey en am na ñoo xam tey comme say jànq yi wala boon yi nii quoi dañu ñëw di fa liggéey ñu leen koy dund ak lu mel noonu mën na leen ko def waaye tey aussi tey moom tey def na yàlla def na na moom gaañu na. rakam mi si kër gi est-ce que bu àdduna mënul dem ba tourné mu def mu ko def wala dara wala bu ko deful rakk tamit def ko keneen ak keneen a keneen est-ce que tey pour noonu mënuñ ci woon a jóg moom def loolu noonu mu dem jël lépp teg ko si yoonu police amaat dara dara daal pour man. salaamaaleykum wa rahmatullah Lu Xew TV bi ngeen def maa ngi leen si jàmm maa ngi leen di nuyu wax si mbiru Adja bi Adja jox na ko cër respecté na ko. comme li jawari monsieur le maire wax rek ñoom yàgg nañ ni wax ne leen am na lu ne ci ginnaaw tax woy bi yooluñ ko wala nangam waa gëstu leen ko doon na laaj ci tim ku muy xam nga yooyu yëpp moom xam ne leen parce que ku daan jàng jàngatul toogatu rek bàyyi lu naan def lépp commencé di jaay am beneen comportement koo xam nga ne am na lu xew avant loolu di ñëw waaw moo tax mu leen gëstu leen ko ngeen xam lu waral lii parce kii lii du sagoom du loo xam ne ay tayefam la waaw dañ koy gis souvent lépp di am ci société bi comme le cas ayda dañ koy gis beaucoup de jeunes fii ñu ngi suuf lu mel noonu ci seen biir kër soit seen nijaay la soit seen papa am na ñoo xam ne nii sax seen grand frère moo leen koy def seeni mag yooyu dafa war a jeex ci société bi parce que ñu jigéen ñi dañu sonn surtout ma ñun les fii lu nekk la ñuy teg suñu yaay duñ ci yëg ñuy subir ay naqar te kenn ñemewul wax xoolal li dal ay da loolu lu ñu gis la ci société bi fii dafa am ay pédophiles yoo xamante ne nii il faut que ñu dénoncer leen il faut que ça cesse. waa man Mœurs film bu ma neex la. waa surtout Aida Aida bu mu fi suyee macha allah suyee na ko normal parce que lii mu dund nii ñu bari dañ koy dund waaw te moom li mu wax rek rakkam lay protéger mën na am bu demee woon ne après paa dina wàññeekuwaat demaat si rakk bi moo tax mu mu def lii mu def mais rôle bu mu wax dëgg yàlla am ni mu ko suyee normal na bu baax te yaayu Aida moom. xaw naa kaa en tuuti parce que moom dafa waroon déglu doomam waa di ko toppatoo su koy wax mu déglu ko lu mën di wax mu xool ba xam li muy wax dëgg la seetlu ko bu baax a baax mais moom dégluwu ko benn yoon mi ngi jàpp na rek borom bongu maan moo koy def lu bon ndekete yoo moom ki koy def lu bon mu ngi si kër gi loolu lépp waroon na kaa mën a xam xam xëy na su déglu woon Aïda mu expliquer ko dina ci am lu ko leer mais nangu koo déglu benn yoon. looloo tax mu demee nii mu demee mais borom bongamaan wax dëgg yàlla am ku baax la góor yàlla la macha allah li mu joué tamit normal la macha allah baax na trop ndax bu doon yeneen góor yi dina demee neneen parce que moom bi ko Aida wanee boppam dafa lànk daal di ciy génn ba set si te bu doon góor yi du noonu dinañ def leneen macha allah li mu moom normal na góor yàlla dëggantaan la. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di ziar bu baax waaw man moom si rôle Aida bi rek lay commentaire ndax moom rôle bu am solo lay day jàngal nit ñi lu bëri bëri bëri wax dëgg yàlla man moom gis naa sama bopp ko dund moo tax dëgg yàlla lii moom am na solo lool. waaw jàmm Aida moom rôle bi mu joué nii. am na solo lool am na solo lool man moom su doole daal sama ma neex la wax dëgg yàlla. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa TV ñu ngi leen di siyaar baax di leen ñaanal jàmm di rafetlu seen taxawaay ah man de série sénégalais yi ni ma ko gisee maanaam léegi doy na waar lool de doy na waar lool liñ ci wane moom doy na waar lool li ci mujjee rek mooy série Mœurs boobu noonu ndaw soosu vraiment rôle rôle rôle buñ ci xaw na doy waar lool de doy na waar lool ndax loolu moom est-ce que mi ngi sóoraale bis bu demee ba nekk mag. nga xam ne vidéo yi dafiy des YouTube bi maanaam luñ ci dugal moom mooy loolu dootul dañ ëllëg ay njabootam mu amul njaboot di ko seetaan wala tey mu dem ba nekk mag bu ko xoolaatee dana ko rëcc maanaam nit ñi daal war nañuy xool yi ni joué daal bëgg bës wala bëgg siiw wala bëgg xaalis jërul tax ngay joué yenn rôle waaw ndax àdduna moom dara yàggul te nga nekk mag di ko xoolaat soxol di jeex te doo ci man dara ndax internet bi moom li ci xas bu dugg moom dootul dañ moom ndax gis nañ fi façon théâtre yu ne ñi ko woon ñi dem nan balaa ko te teewul tey ñi ngi koy seetaanaat vraiment war nañoo rafetal seeni kii daal parce que léegi théâtre yi dem na ba xàmmee woo ko film yi européen yi suyee occident yi film yi ni suyee léegi xàmmeetoo ko théâtre yi vraiment lu ne moo ci am ta nit ñi moom bari nañu gàtt xel ñoo xam ne luñ gis ci théâtre yi rek jàpp ne moo am dañ koy daal di jëfe vraiment war nañoo xoolaat seen bopp bu baax a baax ngi rafetlu seen taxawaay yéen wàllu xew TV. waaw groupe soppante bu wóolu waa soxna si ñu ngi lay ziar di la ñaanal kenn du jàmm waa numéro bi si YouTube bi laa ko jëlee waa mooy kii mooy kii Adja boobu kii Aida moomu. ñu joué noonu nëx bi mais man kontaan naa ci parce que lu tax ma kontaan ci Aida noonu la ma noonu la ko mën a joué bu doon keneen tamit noonu nga ko mën a joué noonu nga ko mën a def dundee daal comme papaam menacé na ko di ko def noonu ba muy xele ba tey te mu koy dund Aida bëgg wax mun ne ko boo demee ci sa rakk laay nekkaat Aida bëgg a moo tax mu continuer loolu di ko dund ci biir kër gi di ko muñ loolu Aida dund noonu am na ñu ko fi dund ñu bari parce que loolu day am loolu lan moo ko waral sa doom am na bu tolloo yenn âge bu ko bàyyi muy sol yenn colin yi di dem ci papam yenn heure yi comme ça sa papa wàcc nga naan ko dama defaral sa papa kafe dama defaral sa papa ataayaak dama defaral sa papa añak dama defaral sa papa reer ay yooyu yëpp góor góor góor rek la mën a doon am na yenn comportement boo ko defee ci wetam rek xelam dina soppeeku te góor bañul dara góor moom amul lu muy bañ góor bu ne bañ na dara góor rusukaayam bëccëg la ñu bu xasee guddi amul lu muy rus góor ndeyam bi ko juusa sax bañu ko bu seexluwu ko bu ko nangoo sax bu ko nangulee rek moom mu ne ko acca moo tax yow mi ki jigéen ki nekk ci biir kër di sëy yaay toog gérer sa doom régler sa doom muy sol yenn colin bu baax bi ci kanamu papaam am na yenn heure bu ko fa yónni ci papaam am na yenn colin yi bu mu ko sol dem ci papaam yow sa jëkkër sa borom kër bu wàccee yaa ko war a defaral añ yaa ko war a defaral kafe yaa ko war a defaral reer yaa ngi dégg mais dama defaral sa papa dama defaral sa papa lii loolu yëpp yow mi sëy yaa ko koy dugal moo tax ñun jigéen ñi à chaque fois nañu jël suñu doom yi di leen yar ci comportement bu baax ci yarin gu baax ak colin gu rafet parce que colin gi tamit ci la bokk parce que am na yenn sol itam boo koy sol tamit di ko def tamit rafetul tamit waa bu dee wax ji nag am na gàllankoor te maa ngi jéggalu bu baax a baax waa àll jaaw nekkat ci jàmm merci beaucoup waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu kenn ku nekk turam ak santom di nuyu waa lu xew TV di leen jaajëfale te di leen wax ne seen liggéey rafet na seen liggéey rafet na trop ñun ñi tamit kontaan ci bu baax ñi koy seetaan kontaan nañ ci bu baax waaw ma ñëw ci affaire série série match bi match bi dafa doon. série boo xam ne daf ma neex ci série yëpp daw man moom rek lay suivre nag waaw du ma ko du ma mokk mu raw ma benn yoon saay bu saay bu juróom jotee rek dama koy suivre bu ñëw ci mbiru tamit ah, moom moo mujjee jénd jàll ci série bi waaye daal mi man sax ba ma ko seetaane sax dama yegg yow dama kaa jàppee comme nit ku bon la quoi mais boo gisee mu doon def yi yëpp xam naa daa amoon lu lakkatu woon ginnaawam ak lu ko metti woon daal loolu moo taxoon mu doon dundee lii pour bugg rek mu éliminer ko waaye faram gis nga nag fu ngeen mu mujjee gis nañ ko bu baax nag ma leen di wax nag suñu kilifa yi nag nañ bàyyi li ñuy def en tant sa doom tamit bi nga jur nga def ko comme sa doom nga jël asaf la nga def ko comme sa jabar saay saa yoo boo ko soxlaa rek nga jot ko du ni soo sa doom juróo ko woon pour nga koy def yi te doom doom nawle la kenn ku nekk te waajur bu nekk bu dee yàlla da boo eggee sa bàmmeel yàlla da lay laaj nan nga doon dundee ak sa ak sa ak say kuy quoi ak doom loon nga doon def nga doon dundee ak say njaboot yàlla da am sa doom. nga koy def comme sa jabar sa doom sa doom la danga ko waree comme sa danga ko war a jàppee comme sa doom bi nga jur mais waroo koo jàppee comme sa jabar bi nga tàkk loolu baaxut te Aida Aida papaam yaayam muy foofu moom moom yaayam muy foofu papa ji la ko teree dem ci yaayam waaye xale bu ndaw bi te dee ko kii li mu wax Aida lu mu wax nee na bi moom bu muy bu xale bi papa ji de mu ngi sëgg ci kawam ba mu màgg ni xam nga loolu tamit rafetul ndax man lii ku ko defoon moom du ma la du ma la suturaal de mi sam papa sax ma ko def moom du ma la suturaal moom damay wax ni yii moom balaa nga may que am na yenn yii moom yii rafetul wax dëgg yàlla rafetul ndax maa ngi maa ngi jégalu bu baax nag si kàddu yi ma doon wax nii maa ngi ci jégalu bu baax waaw ma leen ci leen jaajëfatee di leen wax ne ni ñu jàmm waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyu ku nekk ak sa tur ak sa sant di ziar ñëpp xam nga di nuyu ku nekk uh, sa tur ak sa sant quoi waa di leen wax ni ñun moom benn série mooy série la fii uh, saison trente trente quatre bi bon boo seetloo xam nga am na benn femme benn gel boo xamante mooy ku doon am na gel bu adopté bi xam nga mu ngi dugg saaga quoi xam nga man bu ma sañoon daal si aar bi dañuy jël saaga yi xam nga évité loolu quoi bu ñu nekkee si xam nga tournage bi xam nga nekk ci ci liggéey bi daal avant muy jàll si média bi xam nga nañuy defar seen paroles yi quoi parce que am na xale xamante ni foofu lañ tàmmee foofu lañ jëlee seen jukko yu baax foofu lañ jëlee jikko yu bon yi xam nga kon loolu lépp ñoom ñoo ko mën a rafetal ñoom ñoo ko mën a yàq tamit xam nga voilà man loolu rek moo mën si tranché tuuti quoi franchement parler xam nga mais à part ça moom franchement parler xam nga lépp nice na kontaan nañ baax a baax na